voilà c'est bon euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi naka la. bon man Rawane Ndiaye laa tudd en fait ñëpp euh, ñi ma xam ñëpp ci au nom de Ilu Ndiaye lañ ma xamee quoi. fan nga dëkk. en euh, fait maa ngi dëkk Cité Sonès. voilà Ilu Ndiaye tey nga ñëwoon fii pour waxtaan bi par rapport ak ay problèmes yi nga xam ni dafa am entre Cité Sonès bi ak la mairie est-ce que mën nga ñëw pour mën a sujet bi si projet bi. ah ok d'accord en fait problème bi du lenn lu dul en fait ñun. dañoo dëkk ci benn cité boo xamante ni ñiy dem au niveau de la plage yëpp fii la ñuy jaar en euh, fait ñiy dem gàddaay aussi yëpp maanaam cité SONES mooy nekk moo nekk porte entrée bi te ñun nag euh, dañoo toog xool suñu cité bi gis ne ni ñun dañoo nekk ci danger ñu ne pourquoi pas que duñ toog réunir ñun cité bi yëpp sécuriser suñu cité loolu moo ci tax a jóg sécuriser suñu cité ñu ne waa dañuy toog euh, waxtaanee ko effectivement. cité SONES ñëpp and ñëpp d'accord ci ne dañuy sécuriser suñu une cité ñu ne léegi dañuy bind lettre demande au niveau de la mairie ak police pour mën a sécuriser suñu cité léegi bi ñu ko defee nag ñu déposer def li ñu war def li def déposer ko au niveau de la mairie mairie bi accepter ñu loolu jox ñu euh, tontuñu ne ñu nous ngeen def ces activité mën ngeen sécuriser ñu ne ko. waaw uh, uh, en fait cité bi boo xoolee dafa am six portes d'entrée yu ne cité bi léegi ñu ne dañuy dañuy def léegi ñaari porte léegi lañ koy utal porte sorti ak porte entrée léegi yeneen ñi ñu def ko ay poteaux yu ndaw ay ay barrage maanaam ay barrières yu ndaw quoi ay barrières yu ndaw yoo xamante ni au fait moto yi dañu fa mën a jaar nit ñi aussi dañ fa mën a jaar loolu lépp mooñ taxoon jóg parce que sareet yi aussi dañuy sonal laa nuit la nuit dañuy sonal ak yenn te en plus tali bi aussi bu taawee aussi oto aussi dañuy sonal maanaam ñun duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg suñu doomi aussi nekkuñu en sécurité en plus looloo taxoon nag ñun loolu moo taxoon jóg ne dañuy sécuriser la cité

bon en bon maa ngi dégg ñu ne un certain Nini Diallo moom la moom la quoi un certain Nini Diallo moo fi ñëw toj parce que la la cité bi ne ñëpp nee nañ gis nañ ko moom la un certain nii Diallo xaw ma nag lan moo ci jublu mu ñëw di yàq loo xamante ni ñun demande nañ ko mun nañu mën nga ko def ba pare mu ñëwaat di ko yàq sans nous aviser <laughs> rien di tout.

même boo yàq sax la moindre des choses aussi mën nga ko bindaat ne ko kat li nga def nii ànduma ci dama koy yàq tel jour tel tel ñooñu xam mais au fait dañoo benn problème ci jour boobu noonu parce que dafa am benn terrain benn poche aussi bu benn waay jaay noonu ne waa mairie bi ñoo ko jaay le jour même ñu demoon ci mairie ba ñun pour xool loolu nu mu demee avant ñuy ñëw fii avant ñuy ñibbi ci cité bi fekk nañ ñoo ñëw nañ def seen i fi banditisme yooyu ñëw daaneel xam nga yàq yàqati cité bi yëpp ñëpp du coow ñëpp du ñu woo ñëpp du ñu woo téléphone ne yaa ngi yàq yàq te cité bi boo gisee image yi boo gisee image di nga xool ne cité bi yëpp yàq nañ ko déjà actuellement bu tawoon nii foofu day taa te actuellement ñoom sax gën nañ ko yàq parce que seen ndaraan lañ fi indi ndaraan bi def lu ko neex dem yoonam boo fait ñun dañoo demoon mairie ba jour boobu pour am benn problème bu ñu fa lijjanti avant ñuy ñëw nag ñoom fekk nañ ñu def liñ def ba pare te te ñun te te actuellement liñ def noonu métti na waa ci la sonal ñëpp

boobu daf boobu xam nga fekk fi fekk fi si fekk fi waa Cité SONES mais bu fekkoon waa Cité SONES du yomb ci moom du yomb ci moom parce que gars yi nañ dal ci kawam léegi problème nag la ñuy bañ pour la prochaine fois bu fi ñëwee moo tax euh, woo nañ huissier de justice ñëw na def na constat def na lépp bu fait jébbal nañu ko ñun nag la nag a ak seen responsabilité parce que nii ni jaalo dañ waa Cité bi euh, prendre nañ seen responsabilité ne dinañ ko porter plainte parce que li mu def tegu ko fenn nit ki. bu defaree ba pare boo ñëw di ko yàq sax boo ñëw di ko yàq au moins war nga ko aviser wax ko lii moo tax lii ak lii lii moo tax ma koy yàq parce que nit ki avant muy defar aviser na la ba pare ne la lii lay defar lii la ci bëgg def lii moo tax mu koy def ay ay ay yu leer ku ku soxla papier yi man mën naa ko photocopier jox ko ak demande bi ak autorisation bi yëpp mu ngi ak man ay preuve yu palpable yu leer sur la table lañ yore. kon donc kooku bi ñëw di yàqu aussi waroon nañu waroon na jaar fu mu war a jaar mais defin bi ci boppam moo rafetul. ci matalaay wax bokk mu ñëw fait e, effectivement am na huissier bi ñu woo moom ñëw na def na état des lieux ba pare. Mhm. en fait su paree aussi dañ ñun tamit am na beneen liggéey bu ci topp incha allah. voilà

woote na euh, bi mu gisee ni barrières yi aussi euh, bi mu gisee ni parce que Racine li fi nekk ak li ñu ko wax c'est pas la même chose Racine dañ ko wax ne ñun dañoo tëj dañoo tëj cité bi te alors que ñun tëjuñu cité bi dañoo def ay petit poto ñoom ñu ñoom ñu wax Racine ne dañoo tëj barrières yi parce que au fait Racine am na ku mu fi am na benn délégué de quartier bu mu fi mooy chef de délégué de quartier responsable au niveau départemental Amidou Diallo moo fi ñëw en personne effectivement moom li ñu ko wax nee na li ñu ko wax.

les bu de jàllee ils se sont dit que voilà vous vous comptez faire ce qu'on appelle une cité résidentielle. Uh-huh. raison pour laquelle da ngeen de a cité bi carrément. c'est ce uh-huh. qu'ils disent. Uh-huh. parce que même des études que j'ai eu à travers un des collaborateurs. du maire. li mu wax moi

waaw par A ou par dina ko fay parce que nit ki mënoo ñëw yàqal ko pare dem sa yoon noonu sans sans rien lui dire waxuñu ñu dara waxuñu tooy na waxuñu woon na ñun nag woo nañ huissier bi huissier bi ñëw na def na constat ba pare li si topp nag ñun dinañ ko def parce que bu ñëpp xamee foo jëm mm, doo yegg. voilà

c'est au niveau de la mairie ñoom ñoo taxoon ba léegi eggul en plus tali bi tali bi tali bi aussi amul canalisation amul dara léegi tataay nag bu bu tali bi taawee noonu ñoom tataay duñ jaar ci tali bi parce que tali bi amul canalisation dina presque ndox bi dina fa def une semaine léegi ci koñ bi nag la ñuy mën di jaar ci koñ bi la ñuy mën di jaar léegi moo tax nag ñoom ñu yàq suñu barrage yàq suñu barrage pour oto yi pour oto yi mën a jaar pour oto yi mën a jaar ci koñ bi moo tax ñoom ñu yàq suñu barrage man boog noonu laa ko jàngatee parce que tali bi amul assainissement amul canalisation amul dara moo tax dañ ne comme comme koñ bi nag voilà oto yi mën nañ faa jaar xaaral ñu dindi barri barrières yi yi fi ñuy def tànkal leen yàqal leen seen sécurité bi ñu bëggoon def oto yi di fi jaar. une toute dernière question rek dañu laaj est-ce que tey li nga xam ne moom lañ fi yàq en terme de démolition en terme de matériel est-ce que mën nañoo defal estimation bi wax ñaata la. bon liñ fi yàq nii bu ko doon xayma peut-être parce que fii dafa am six six yu ñu waroon defar. te trois yi lañ defar trois yi lañ jotoon defar te trois yi liñ ci dépensé mën na ay autour de six cent et quelques mille yooyu noonu. parce que man maa yoroon projet bi au fait man maa yoroon déroulement beeg yëpp man maa yoroon déroulement bi effectivement. d' accord à part ça donc dañuy xam nga tamit nit ki tamit yow bi bi nga ko bindee. Mhm. mu tontu la. buy ñëw di yàq aussi waroon na la mën a tontu mais comme tontuwu la avisé la aussi waxu la dara aussi man man aw leen lan laa leen ah, man awma benn aussi di sol sama daal aussi di fa dem mais am na ñoom si ñoom am na ñi nga xamante ni ñoom xam nañ ne ñii dañoo def erreur li ñu def teguñu ko fenn aussi ñoom jëm nañ ñu contacter nañu pour trouver pour xool naka la ñuy arranger la situation mais mu ngi en cours ñoom ñi ngi xool nu ñuy arranger la situation parce que xam nañ li ñu def nii teg teg teguñu ko fenn. d'accord euh, waaw un mot de la fin si gestion Racine bon Racine euh, ñun man ben problème ak Racine vraiment peut-être si la gestion mairie bi peut-être ñu ngi liggéey mais de na lu bari des na quoi avons lu bari lu a des des na dëgg actuellement insécurité bi temps mu lampes bon sàcc yi bari nañ fi temps yi agression yi bari na fi doo comprendre daal à la fin te Racine tamit nekk na benn maire boo xamante ni boo ko gisee ren aussi balaa nga koo gisaat enquête encore déwén koy gis franchement nag ñun nag amuñu lenn loo xamante ni contre Racine la waaw mais nit mais nit ku nekk am nga ay ambition politique aussi nit ku nekk am nga ambition peut-être place bi mu bëgg peut-être am na ñeneen ñu ko bëgg jeunesse aussi bëgg nañ ko am na ñeneen ñu ko bëgg aussi nit ki nag boo defee sa liggéey nag ba pare wax dëgg fa yàlla boo boo xamee ne jeexal nga aussi da nga war a dem rek may ñeneen ñi aussi ñoom ñu mën a def aussi ñoom ñoom aussi ñu mën a utiliser aussi seen xam-xam aussi. d'accord. rek laa leen lenn rek laa ci yokk en plus cité SONES bi ñun moom lañ am man aussi moom laa am muy sama base politique yaakaar naa ne keneen ku fi ñëw aussi di ko yàq wala di fi def naka su noonu xam naa ne gëm naa ne sama kaw ngay jaar wala aussi di nga jaar ci kaw cité bi yëpp. wa merci beaucoup. merci beaucoup aussi di rafetlu aussi sa intervention bi aussi de la santé de la merci beaucoup.